mbégumba keeg ndaam cëral na waa ndaawaam góor dootul yab ndaam cey sëriñ baara mooy ñetti mbàkke bu kenn dul ñàggi seytaane teggi ngir sëriñ baara di waajal nag màggalug mbàkke kajoor màggalu indépendance màggalu xéewal màggal gu ñu jox grâce cheikh yi fi nekkoon yëpp indépendance dugg jàmm dugg 4 février 2019 ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci rakkaati gàmmo bis bi nga xam ni ci la cheikh mu lamin Bara Mbacké feeñoon jamono Serigne Touba ni sant leen yàlla li ngeen fi bëggoon li ngeen doon wut gan gi fanaan si indaale na ko koo koy Serigne Bara ren nak benen feeñaat ci njabootu Cheikh Mouhamed Lamine bara yu gor ken desatul seet yee jël yàlla na yag Serigne mustapha Cheikh Sidil Mokhtar premier khalifa seti Serigne bara andando ak rakam yeb njabootu Serigne bara yeb ay rakam ay bàjjanam ñu fasiyene nak màggal Mbàkke Kajoor loolu nag bu amee ñu jot ndigal lu bàyyi ko ci Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiir xalif général kullu murit yàlla na fi yàgg te ànd ak ànd nag ak borom kër gi ndax guy mbind mooy daaru xuddoos daaru xuddoos mooy gi guy mbind di woote bis bi nga xam ni mooy màggalu jumaadul ula magal jumaadul ula nag suñ ko waxee moo di màggalu Mbàkke Kajoor bis bi a cheikh Mouhamadul Amin ibnu Xaadimu Rasul nga ne woon àddina muy ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci rakkaati gàmmu ji incha allahu ren mi ngi war a tombeek ñeenti fan ci weeru février bis boobu nag kenn ku ne xam na la ci Cheikh Saliou Mbacke waxoon bisu taw féex la bisu ndimbal la bisu faj ajo la loolu moo waraloon ku tedd ki suñu waajur wa Cheikh Sidi Makhtar su ko masaa di woote danaan dafa tënku ci ñetti anam bu jëkk bi moo di bisu fàttaliku la bu ñaareel ba bisu sant la bu ñetteel ba bisu bisu bisu ñaan la loolu moo tax Cheikh euh, Mouhamadou Moustapha mi ànd ak njaboot gi yëpp di ko woote di ko yëgal àddina bi yëpp di ko yégal yëgal bokki jullit yëpp rawatina njabootu Cheikhul xaddim gi su ñu waxee njabootu Cheikhul Khadim nag mooy xali képp koo xam ni yaa ngi bokk ci sëriñ bi ak noo ci bokkee tàmmalee ko ci xalifay doomi sëriñ Touba ak doo soxna yi nga xam ne sëriñ Touba moo leen jur ak mbooleem njabootu maam Mor Anta Sali ak njabootu maam Balla gépp ak njabootu maam Maharam njabootu musóobe yi njabootu njaxate yi njaxeetu ñengeen yi képp koo xam ne ab cheikh nga yaa ngi ci biir xam naa sax euh, waa kër sëñ Adama Gueye dina yëkkati kàddu ci ndigalu ci turu euh, cheikh yi Serigne yooyu la waaye sëriñ baa ngi ñëpp di ko yëgal itam mboolem ñi nga xam ni ay kilifay diine lañu ci biir Sénégal te ñu ànd nag cheikh di Makhtar ànd bu rafet jàppoon ko yëgoon ko doon ànd di defandoo lépp kon sëñ baa leen ko yëgal di ko yëgal mboolem tarixa yi nga xam ñi ngi ci biir Sénégal yëpp rawatina ñi nga xam ni ñoo ŋànk turux yi di ko yëgal association islamique yëpp di ko yëgal ñi nga xam ni itam ay taalibe lañu ñi nekk biir Sénégal ak ñi nekk biti Sénégal di soññee itam ci li nga xam ni moo ëpp solo ndax dañoo wax ni bisu fàttaliku la bisu ñaan la bisu sant la loolu nag ci li ñu koy doxee mooy tanzimuhu bi sunnati naa lil jannati moo tax Cheikh si Cheikh Mouhamadul Moustapha di sàkku ci ñëpp ci atti diine yëpp rawatina ci daaray alxuraan yi ci daaray kaamil yi ci dawaayir yi ci képp koo xam ni mën ngaa jàng alxuraanul karim nga jàng alxuraanul karim te yéene a cheikh Mouhamadul Amin Baara yool bi ak ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci barsax. Euh, dool dool dellu di santaat yàlla subhaanahu wa di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa di santaat sëriñ Tuubaa bu baax di wax rek ci ndigalul sëriñ Ahmadou Maxtaar ak njabootu dara xudus gépp ñu ma fii ci sunuy mbokk ci sunu kanamu kilifa sëriñ Mouhamadou Moustapha xalifa sëriñ Baara ñu teew nii ci am mbégte mu rëy teew ci sunu biir mbokk di andi di woote woote bu sell bu mag bii nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mu mel ne ak xër sax boo tax ñu jox ma kàddu waaye wooteeb sëriñ bi rek ci ndigalu sëriñ bi doyoon na sëkk ndax ku ko dégg fu waaye taalibi fu taalibi mën a nekk ca yaakaar Cheikh Moustapha xam nga ni Cheikh Moustapha moo woote fu ab taalibi mën a nekk te yaakaar sëriñ Baara it xam nga ni Cheikh Moustapha moo woote kon mel na ne genn kàddu bi képp doyoon na sëkk xanaa di feddiliwaat kàddu yu rafet yi fi jib rek di wax ne liggéey bu mu ci mën a doon sëñ Axma nee na fas nañ ko yéene ànd ak yéen njaboot gi dana ko ànd ak yéen taalib yi danañ ko ànd ak yéen ndax loolu mooy li fi mas a am te loolu moom dong mooy sunu yitte ci loolu dong lañ bëgg mu doon liy wéy ndax dogalub yàlla la ceet yàlla moo nu fi boole ñu nongu ñun ñëpp dogalub yàlla muy dogal bu nu neexit nag ndax bokk ci sëriñ tubaa bokk ni ñu bokk ci Serigne Touba nangu ko di ko dundee ni koy dundee suñuy waajur daan ko dundee noonu loolu ak cant yàlla la ci ñun ñëpp kon ñi ngi ñaan rek suñu borom jataay bii yàlla ko yàlla yàggal màggel gi yàlla nañ ko yàgg a taxawu ci yàlla nañ ci yàlla dajale ak ngërëmul borom di woo bokk taalib yëpp di ko fàttali ñëpp rek soññe bi nga xam ne sëñ Cheikh Thioro def na ko mu jëm ci ndigalul xalifa général des mourides <coughs> di sëriñ Mouhamadou wàlle na ñëpp ñu ngi soññ ñëpp mooy soññuwaale Daaru Xudus ni mu soññee guy mbind na ñëpp bàyyi xel ndigal loolu ndigal li daal lenn la kër gi genn la yitte it yenn la ku lu ci yitte ju ci jub rek na xam ne yitte yi ñëpp la ñun ñëpp fas nañ ko yéene ànd ci kàttanu yàlla ñu ngi ñaanal yàlla suñu borom ñu egg ci ci yàggoo taxaw ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp. ñun nag cër biñ ci am te féetewoo ko. ba fi Cheikh Sidi Moukhtar nekkee di Serigne Bara ba ñëw di Serigne Touba ba tey jii Serigne Moustapha nekk fi bis bis lañ ca am te féetewoo ko mooy saabu bis bi jigee ñu woo mbooloo bi ñëpp ñaan ñu daje fa setal béréb ba ndax defe naa setal béréb bi am na yiwu ci nekk woo xam ni tolluwaay ba ku ko doon ku ko doon limitam doo ko mën a wax ñu jàpp ko la vingt ajjuma la vingt cinq ndax boo doon dox ci kaw yoon képp ba fekk fa loo xam ne jombul bu ca nit jaaree te gisu ko mu gaañ ko sag toxal ko boo ko toxalee ba yoon wa leer daanaka ak texe mën na caa juddoo kon rawatina dëkk boo xam ne Serigne Touba ko sos mbooloo mu tal noonu di fa daje te yiw képp di leen fa dajale nga setal ko balaa ñu fay ñëw kon ñoo ngi woo mbokki jullit yëpp bàyyiwuñu kenn di woo daayira yi di woo association yi di woo seex yi. di woo ñëpp mooy di soññ mboolem fédération yi nga xam ne dañoo aju ci kër gi waaye du soññ fédération yi nga xam ne dañoo aju feneen itam ndaxte liggéey bi waxuñu rek ni liggéeyu kër gi la liggéeyu yoonu murit la bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu nu sant borom bi subhaanahu wa taala di julli ci sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa di nuyu sunu mbokk yiñ fi fekk yépp ci njiital Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Sidil Muxtaar di xalifab Cheikh Mouhamadul Lamine Baara yal na yàlla dolli ko ay leer di nuyoo ci turu Serigne Cheikh mi nga xam ne moo jiite délégation bi nga xam ne moom nañu àndal di Serigne Cheikh Kajoor di sunu waajur ak ay doomam ñi mu àndal ñëpp leen nuyu ci turam ci njiital Cheikh Moustapha mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Mbacke Kajoor tey jii ci kaw suuf di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi loolu te wér di nuyu Cheikh Moustapha ak rakkam yim seqal ñëpp bokki guy mbind yëpp yi ñu fekk di dogal ngant bu baax ci kàddu yi ñu fi jël xëy na day kàddu yi ndigal sëñ ñu ko bañ waaye la sëriñ bi waxoon rek laa tafaalu cheyan bi xayri isni fal isnu chartun fi xabuli chani loolu moo ñu ci dugal waaye li ñuy jëmale sunu kàddu rek ginnaaw bu nu sante yàlla tey ñaan fekkewaat déwén mooy dañ koy tag rek ci aayab sunu borom bi mu wax ne yaa ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuikum loolu moon tax a wuy si woote bi ndax nag ku sumb lu baax woola ca defe naa ne soo wuy si wut góréwa te waa kër Cheikh Mahamadou Lamine Baara ak waa Mbacke Kajoor du woon tey démb la woon ndax Cheikh Mamadou Lamine Baara moo fekk si woon sunu maam sëñ Amar Fall Mbacke loola wax nañ ko waxati ko kon du jëriñ ñu di ko jaaraat waaye loola rek ak fàttali lay jëriñ ndax fàttali dana jëriñ ki nga xam ne mooy dund kon loolu baax na bu baax ñu fàttali ko boo gisee jataay bi ñu boole na ci kon lu mel noonu la waaye nag ñu di ci sant yàlla bu baax a baax a baax ndax xam ngeen ne fàttewu leen démb di ñaan nag sunu borom tabaraka wa taala mi nga xamne mom moy borom lépp ak fépp te wu dara bis bi nu ko sumbe nañ ko tàmbali ci bismillahir rahmanir rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin tey ñaan ñu daje ci ak tawfiixal Cheikh Ahmadou Lamine bare mi ngi koy defal tey soñu ñëpp nak lima gëna ci lima gëna insist nak moy jankati alquran ñu lu baax ci lépp luñu mën ci alquran ak xasiday sëriñ bi ñu jàng ko fa defal ko adiy sëriñ mohammed Lamine bare ak mbolam njabootu serigne touba gi ak képp kuy yëngatu ci wàllu xasida loo ci mën nga di ko def ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa ndax loolu rek mooy lii xelal bis bi ndax bis nag bu buñ koy woote la ëpp njariñ te bis ba mooy jàng alxuraan zikkar ak bernde te bépp yoonu bépp bis buñ fiy wooteel ci yoonu murid rek loolu mooy cëslaay la kon noo ngi woo ñëpp te di ju séntu ñëpp te ñaan ñu àgg ca àgg faak jàmm màggal ko ca daje ak tawfeexal sëriñ bi di jégalu ñëpp. ba tax na sëriñ bi mi ngi soññ ñëpp di woo ñëpp. ci li nga xamee noonu lañ ko daan taxawoo foofu ci bitim réew mboolem dawaay ir yëpp ak fenn fu ne fu ñu daan màggal foofu itam sëriñ bi moom sosut waaye mm, day continuer rek ci li nga xamee moom la ay waajuram defoon lépp luñ defoon itam amul dara luñ ciy dindi waaye da koy gën a saxal da koy itam gën a dëgëral kon ñu ngi joxaat ndigal ñëpp kenn ku nekk nam daan taxawoo ci bis bi ci fii ci senegal foofu ci bitim réew mi ngi joxe ndigal ñepp ne nañ ko taxaw ci taxway bu ëpp solo mm, ba bok bu gëna a dëgër ci bañ ko daan taxawo waye nak wo ngeen ko ci dëkk bo xamne dëkk la bo xamne leppam la ndax Cheikh Adama Guèye ka jor la jëbloo ci sëriñ bi fa la fa la fa lañ ko denc. kon nak bu ngeen ko wo fofu wo ngeen ko ci lu mu sawar. ah mi ngi fédli it ko leer gi nga xamoon amono ci digënté sëriñ Baara ak bayam sëriñ magay Jama ñoo ngi ci woo seex yi sëriñ Touba yëpp bàyyiwun kenn ña jébbaloo woon Mbakke Kajoor ak ña jébbaloo woon Daaru Salaam ak ña jébbaloo woon Touba ak ña jébbaloo woon Mbakke Bari Jolof ak ña jébbaloo woon Ceyeen ak ña jébbaloo Njaaréem bàyyiwun kenn képp koo xam ne sëriñ Touba takkal na ndam ak tànk ñoo ngi la ciy woo ndax Cheikh Mamadou Lamine kat bi muy ñëw ngërëmal mag ñoo ñu la indaale kon nag ku ñëw ci bisam bi ngërëm la mën naa feddaliku ñoo ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla bis boobu yàlla yóbbu na ci jàmm daraje Seexul Xadim ñu yëkkati sunu kàddu ci turu Cheikh Moustapha Diop mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Niane Diop waaye kàddoom googu yóbbaale mbooleem njaboot gi nga xam ne ñooy seex yi aju ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ni ko kilifa yu baax yi waxee léegi rek bisu tawféex la bisu texe la bis la boo nga xam ne képp ku ci teew da nga yëg ne teew ci yëmut ak bañ caa teew kon sëriñ bi nee na mi ngi soññ ñëpp di ko tàmbalee ci kàddu yi nga xam ne Serigne Cheikh Bara Lahad wax na ko léegi te mu jëm ci liggéey bu sell bi nga xam ne moo war am ca dëkk bu sell boo bële te moo di seetal ko kon sëriñ bi nee na loolu kenn waruñu caa jiitu ñoo ñoo ñoo ko war a def ñoo ko war a def kon Serigne bi nee na mi ngi koy soññee bu baax a baax nee na it ngi soññi mboolem daaray alxuraan yi nga xam ne ñoo aju ci kër yi seex yi ak mboolem këru seex goo xam ne daaray alxuraan nga fa rek ñi ngi leen di soññi bu baax a baax ngir ñu taxawee njàngum alxuraan njàngum alxuraan mi ak njàngum xasiide yi kon daal Serigne bi nee na mi ngi soññi mboolem taalibe bu fi aju di ko di leen wax ne nañ takkaat laxasaay yi feddaliwaat sunuy laxasaay ci jëf ju manti doon joo xam ne jóg na tey ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ bi. ginnaaw loolu ñu ngi woote ci turu sëriñ Modou Amar ci màggal gi nga xam ne mooy màggalu Mbàkke Kajoor te muy bis boo xam ne moom ci jëmmi boppam fonkoon na ko lool daan wax ne màggal gi bu ñëwee bu ma kër gi ginaar sax du fi des kon na ñu ngi woote ci turu mboolem njaboot gi yëpp te ka ne ci bopp ba di sëriñ Cheikh Baara Amar di xalifa sëriñ Gumba Amar ak sëriñ Taala Amar xalifa sëñ Modou Waaraan Amar noo ngi leen di woo ñun njabootu sëñ Modou Amar gépp góor ak jigéen bàyyi wuñu kenn di woo taalibe yi dëkkandoo yi noo ngi woo suñu bokki kajoor yëpp mboolem darmanko yeeg mboolem xeetu naar yëpp ñu ngi leen di woo ci maag ci bis boobu ndax ñun day mbàkki kajoor mooy suñu bari bañ nañ ko ba sax bi sëñ bi daata na làqu joxoon nañu ndigal ci màggal gi ñu daan def buy mbind ñu boole ko màggalu Mbàkke Kajoor kon képp ku daan ñëw ca màggal ga jàppal ne màggal googu ak màggalu sëriñ Cheikh Mamadou Lamine gi genn màggal la benn baat la ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Cheikh Moustapha ak njabootu Cheikh Mamadou Lamine gi yëpp waaye ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn kon maa ngi woo taalibe yi bis bii mooy sunu bis bis bii moom la ñu am bis bii nañu ko jàpp ci aw taalibe ci gannaaw sëñ Moustapha mi nga xam ne moo jiitu ci yoonu kër sëñ Baara mbake toppoon ca way juga àndoon ak njaboot gi joxoon boppam askan wi woyofoon ba ñëpp gis ko baax ba ñëpp gis ko loo bokk day mbake man ak ku ma xam ak ku ma dégg ak ku ma bëgg maa ngi lay woo ki nekk Louga ak ka nekk bitim réew ak foo nekk ca àddina cay taalibe ca ànd ak man ci li ma nekk ma ànd ak yow bisu mbake Kajoor boobu képp ku mënta doon nga ci ñëw ñi ngi jokk jotli kaddu yi ci ndigalul Serigne mam tierno khalifu Serigne Cheikh Balla sëriñ bi yabal nu ngir ci wote bi ngir ñu soññee màggalug mbacke kadior màggalug Cheikh mohammed Lamine Bara serigne bi wax ne ci turu serigne Abbas muy khalifu daru Moxti gep mi ngi wo mbollem ku yakkar borom daru ci màggalug serigne Bara gi ci taxawu ko ak dalal ganni li war lolu nak neena euh, fete nga nga sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul féetaloo nag Cheikh Mouhamadul Baara borom Daaru Muxti waaye nag ci biir loolu itam ci biir féete googu itam mu am beneen cër boo xam ne sëriñ Cheikh Abal amoon na ko ci sëriñ Baara ndax sëriñ Tuubaa ba mu yebal moo ba sëñ Baara nekkee Mbàkke Kajoor moo fa yebal sëñ Cheikh la jaar la loxol borom Daaru Muxti nag boo demee na ngeen bokk nekk ànd na seen ñaari bay ànde woon sëñ bi sëriñ bi nag kon nee na màggal gi wàkkat sëñ Cheikh Abal am na ci cër boo xam ne cër bu rëy la kon nag nee na mi ngi soññ mbooleem taalibe yi ak mbokk yi am di jàmb yi ñu taxaw ci bu baax a baax. sëriñ Cheikh Sidi Moukhtar. Hmm. yal na yàlla yokk ay leeram. amiin taas na ci barkeem. dañ ko siyaari Mbacke Kajoor 1991 màggalu Mbacke Kajoor maag sëñ Xaadi Moodu Baara no mu ne jox naa ndigal taalib yi yëpp ku yaakaar sëñ Baara. ñu def fédération jiital naa ci sëñ Xaadi du Baara mooy seen jëwriñ loolu ñu ci dox ba léegi bi mu sëñ Xaadi ne mu ne sëñ Cheikh Baara mi ngi seen kanam. mu mel ni fédération yi ni ko sëñ bi bëgg woon ba léegi amaguñ ko te sëñ bi nekkam gépp ak bennoo la bëgg nu bëgg taalibe yëpp am xalaat ñu nekk benn te xam ne bu nekkee benn luñ jëm daan ko mën lu song daan ko daan ni ko sëñ bi bëgg woon lépp su njariñ la kon góor góorgóorlu bu baax soñee ko di woote nag ci turu mbooleem daayira yi aju ci fédération Munawwirul Bunyaan bu dakaar di ci woo suñu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañu ñu nekkal ci ndakaaru ñi ngi leen di woo ci bis bi bis bi mooy ban bisu Mbàkke Kajoor màggalu Mbàkke Kajoor bis dëkk bi nga xam ni fa la yoonu murit juddoo kon ñi ngi ci woo mboolem mbokku taalibe yi nga xam ni ñoom la ñu nekkal ndakaaru di ci woo alaaji mbàkki yu fay di ni sëriñ tubaa ci ndakaaru di ci woo mboolem mbokku taalibe yi ndakaaru ak li ko wër di ci woo Modou Mbacké Gueye ca Tëngéej di ci woo président de la république ak mboolem autorité politique ak religieux yi nga xam ni ñi ngi ci biir réew mi di ci yëngu ñi ngi ci woo itam njabootu maam Siré Lo ci ñu digalal Serigne Cheikh Bara Lahat ak Serigne Ousmane Mbacké Gaynde Fatma ak sëñ Assis Lo ak Serigne Cheikh Lo daayira nee na ñi ngi woo mboolem buntu kër Cheikh Mamadou Moustapha yi mboolem buntu kër Cheikh Mamadou Lamine yi tàmbali liggéey bi nag ci bis bii Serigne Cheikh Bara woote muy mbale mi ñu xam ne daal kër amatut néeg amatut liggéeyal Serigne Touba am ci sëriñ Mounou Moussa ak Cheikh Mamadou Lamine Bara. sëñ Abdou Aziz maire bu Mbacke Kajoor moo ma yónni di xamal ne mbooloo mi Sénégal bitim réew Mbacke Kajoor moo xewle waaye moom moo xewle ci boppam ba moo tax mu bëgg ni mu laxasoo. nekk maire Mbacke Kajoor muy sant képp koo xam ne maire la ci senegaal ñu xam ne bës bi seen bës la ndax kat sëñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke liggéey na liggéey boo xam ne nii fii ci senegaal ñëpp la ko liggéeyal kon doog bi fi toogee nekk maire daa bëgg maire yëpp laxasu topp ci ginnaawam ñu ànd ñu liggéeyal sëriñ Mouhamadou Lamine Baara te ñu xam ne seen njëriñ rek ci nekk. lépp lu ñu koy defal maa ci war a jiitu maa ci war a jiitu. qawlan wa fi'lan noo ngi ñaan gannaawam na moom doon doxe ginnaaw ngeen ko dox noonu ñëpp nu fekki ko fa mu tëddit bisam bu ne na xeeb démbam waaw ci xéewal sama xol daa fees ndax sama digganteeg moom daal waaw maa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi